Amen. su suñu mbokk internet di ñu seetaan amati nañ mbégteeg bànneex di leen dalalaat seen émission kaay ndogu comme ni ñu koy defee saa su ne rek ci seen émission kaay ndogu waaw tey nag dañu ñëw fi nga xamante moo di buun seet si kuréel gi waa daara ji nekk fii ci buun waa kër maam Thierno Ndamal Daaru fii nga xamante ni moo di tournal buun di fi joxe ay ndogu waa dama jàkkaarloo rek euh, Serigne Fallou Mbacke moom mu wax ñu li nga xamante ne moo waral ndogu yi ñu joxe fii ci tournal buun léegi-léegi lay doon ñu dugg ci biir xool waa kuréel gi daara ji nan la ñuy joxe seen ndogu salaamaaleykum sëñ Fallou maa ngi lay mbaa yaa ngi am tawfeex bu baax ñu ngi sant bu wér kay naka tawfeex Fall tey ñëw seet si waa daayira bi tur daayira bi nan la mooy kuréelu Noreyni daara bun waa kër borom daaru Noreyni bëggoon xam la moo waral ndog yi ngeen di joxe ci koor gi ndog yi ñuy ah, dafa fekk ni moom nit woor ba ba moom nga yëkkati benn doomu tàndarma daa koy jox loolu kii kenn mënu kenn mënu koo fay tiyaaba bi kenn mënu koo fay sa xam tuma nga jox mburu jox ko jox ko café jox mu sedd mu mu ba yëg loolu maqaama bi kenn mënu koo fay wóor na Serigne Touba yenn jëfande lu nekk lañ si jàkkoonteel wóor na Serigne Touba ah, ci lenn lu liggéeyal Serigne bi ak borom daaru nooré borom daaru kay lu ma ci a wax wóor na Serigne Touba Mbacke su ma doon toog fii di ko wax du ma fi jógee wóor na Serigne borom daaru rek lañ xam wóor na Serigne Touba saa borom yokkut waaw mu a mu dem ba doon télé wër na Serigne Touba Mbacké ngeen di jóge àdduna ak ku ne lu fa na borom baar noonu. salaamaaleykum sëñ bi maa ngi lay. asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi lay fay soxna si. Assane Dieng. Assane Dieng ñu bëggoon xam la a sa teewaay ci joxe ndogu. waaw joxe ndogu bi suñu teewaay mooy ñu dañoo bokk ñu mboole balaa dara di jiitu. ndax ñun tamit ay euh, taalib sëñ bi lañ ndax ginnaaw yàlla tam sëñ bi moo ñu xamal lii kenn Ibrahima Mbacke moom moo moo ñu won yoon bi moo tax ñun ñu sañ a taxaw di doxee lii doona lii yëpp ñëw nekk suñu biir ndax euh, Euh, loo gis rek da si am solo waaw li ko tàmbali di ko defee nag moo waral nag ñëpp ñëw suñu biir nekk suñu biir ñu koy ñu koy ñu noo xamante ni mu koy rafetee nag waaye du weesoo nag du weesoo liggéey sëñ Tuubaa rek ndax ni ko gisee nii teg xasida bu weesoo jàng alxuraan tudd yàlla barkeelu séddaloo ndogalu foofu foofu la te naa loolu loolu lañ soxla ci ndogu jaamu yàlla nga ba oto fu barkeelu xam ngir jëm dafa ñu ngir par hasard dañ ko ngir maanaam euh, œuvre loo xamante ni ixsaan boobu ixsaan rafetal la Baye Fall def nii te bu ñu nee teranga wala dafa dafa murit la waaw Serigne Touba moo indi Sénégal bu ñu nee teranga murit rawatina suñu jëmm ji moom borom daaru moom seen Ousmane Mbacke ñu ziar ñëpp nag di jaajëfal bu baax a baax ci kàddu yi. salaamaaleykum sëñ bi maa ngi lay. maaleykum salaam yaa booy ñu lay ziar. jiili la Abdou Khader. waaw ñu bëggoon xam la moo waral sa teewaay ci joxe ndogu yi nga xamante ne waa daara ji ñu ngi koy amal. waaw ñun partage moom Baye Fall ñëpp xam nañ ko si ñoom. waaw te ñun ki ñu yaakaar muy borom daaru Noreyni moom ci partage la ñu yar daal moo tax foog mu demee nii dañuy bàyyi suñu lépp ñëw pour jox jaamu yàlla yi tardé si yoon bi ñu leen di jox ndogu ak ay dëgg waaw noonu la demee ku dul ñuqi doo ñoox waaw te amaana lii nii mën nañ jël suñu xéewal di ko si def duñ laaj kenn mais mbirum Baay Faal bëgg dimbali jaamu yàlla yi jël seen ñàq di ko joxaat jaamu yàlla yi loolu daa am solo daal moo tax muy demee nii waaw borom daaru moom bu ñuy wax si moom amaana beneen dimension la parce que dañoo dañoo dund moom ay mbir yu bëri waaw dañoo dañoo bu ñu demee ba nit ñi di ñu xool duñu naw duñu respecté waaw ñu fonk suñuy waa jaamu yàlla ni mu waree loolu borom daaru la moom moo ko def si ñun barki Seydina Ousmane waaw maanaam bu ñuy wax si moom daal neneen lay demee sax mais lim lim lim ñu def daal romb na suñu dayo billaay wala romb na romb na ay juróom ñettaat ay sept ans parce que ñaari at yi wees yëpp amul parce que covid beeg yenn kii moo taxoon amul mais yàgg nañ ko joxe daal yàgg nañ ko joxe lool lool waaw. waaw yokkute rek lañ si gis waaw parce que amaana tàmbali bi daawul am baas daawul am dara mais gis nga dem ba tey dañuy jël ay baas jël ay cin jën ay lu nekk di ko luwee tout weer bi yëpp waaw ñu koy joxe amaana yokkute gi moom ñu ngi siy sant bu baax waaw. asalaamaaleykum sëñ bi maa ngi. sant bu baax ñu ngi lay nuyu bu baax di la fay. waaw yaa ngi am tawféex tur beeg sant. alhamdulilah maa ngi tudd Ousseynou Dieng. Dieng Sala daa mel ne ndogu léegi mu jot ki nga xamante ne dafa xiif ñoom jël nga jël ko jox ko ñam waxuma la bu dul koor rek kenn xamul ñaata yiw moo ci nekk kenn mënu koo natt waxuma laa na koor nga nit nit nit xiif woor ba ngoon nga jël jog dog jox ko mu dogu te yàlla rek tax jëf te yàlla rek tax loolu kenn xamul euh, nu mu sax kenn mënu ko nag xéwal li si nekk ak yàlla fay bi ci dañuy wax lu baax moom euh, maanaam baax na si weer bu ne waaye ci koor nag si joxe ñam ci koor la koor waaw berne moom ci koor la la lañ ko gën a ah, waaw bëri sa la promotion fay la kon loo mun joxe rek te loo joxe doo ko ñàkk ci ci ngërëma sëñ Tuubaa liggéey borom daaru te nag sëñ moo tax borom daaru waaw yar ñu ni ñuy joxe tamit ah, te joxe loolu lañ si digal yoo xam ne mu gën a sellee asalaamaaleykum salaam ñu ngi lay delloo nuyoo bu baax tur la jox sa wàcc ñu ngi lay delloo baax a baax ñu bëggoon xam lan moo waral euh, cant gi ak euh, ndog yi nga xam ne yéen li ko waral yaakaar naa ku si ñu si bari xam nañ ko ndax ku nekk gis na weeru koor li nga xamante ni noonu la ko mbokk taalibe di doxalee yaakaar naa fi mu ne nii moom lu mel ni daj na Sénégal te lépp waree ko loolu wane passé fu Baye Fall ab Baye Fall moom liggéey joxe la xam kon weeru koor bu ñëwee luñ doon def si bu budul weeru koor muy lu baax dañ ko war a yokk comme niñ ko waxee sànq rek weeru koor weeru ngëneel la liñ naan weeru promotion la lu si waa di jëf lu nekk rek maanaam suñu borom dala koy fay moo waral ñuy si nekkee nii dëgg la yàgg nañ ko di def nag mais saa su nekk rek day gis muy gën a yokk ndax li ñuy wax naan mbiru sëriñ bi moom amul tànk ginnaaw tànk kanam la am comme ni mu demee nii mosul woon am kon lii bu amee dañuy xam ni kon lépp sëriñ bi la daal waaw te jubluwuñ si lenn lu dul sàkku ta sàkku tuyaaba rek ndax li ñuy wax xeetu jaamu yàlla yi dafa bari xeetu ibaadaar yi bari na du caagane julleeg woor ak natt asaka kese am na yeneen xeetu jaamu yàlla yoo xamante ni xam ne amaana mën nañu koy dund si suñu diggante te xam loolu day nekk loo xamante ni taw tawfeex la te du loolu lu ñuy sori moo waral kafe gi ñuy segg kafe ak dute ak mburu yeeg yooyu di ko jox mbokk taalibe yi comme ni ko gars yi gisee daal waaw borom daaru nooree moom kooku moom ñun mënuñu wax si moom war na sëriñ Tuubaa ndax moom li muy yëg si ñun ñun loolu la ñuy yëg si yëg si moom cofeel googu ñun saa su nekk rek ak waxtu bu ne buñ ko gisee rek ñun loolu la ñuy sentir si moom xanaa dañ koy ñaanal rek mu yàgg fi te ànd ak wér ba li nga xamante ni naal na ko yéene ko si si liggéeyu sëriñ bi sunu borom defal ko si lu kawe njortam mu ànd koog taaliba yëpp di ñaanalaat borom daaru nóoree mu yàgg fi lool te ànd barkeb Seydina Ousmane rey लाला ब्रह्म सिकारा

La palabra musical. waaw gis ngeen tey euh, seen émission kaay ndogu fu mu ñëw fi nga xamante moo di tournal buun fekk si njabootu waa kër maam Thierno Daaru Ndaamal Daaru gi ni muy déroulé ànd ceeg taalibe yi nga xamante ne ñoom ñu doon joxe ndogu fii tarkala nee la képp koo xam ne ittewoo nga ko rek jox nañ la ko yaa xam muy góor muy jigéen

Abonnez-vous à ci chaîne YouTube bu info TV nga pouvez di bës li nga cloche bi ngir les notification